nemmeekoo jafe-jafe mbëkk mi ak limu nit ya cay faatu kuréel yi nga xam ne ni mooy ANPJ ak OIM xaatim nañu ay déggoo yi tax ba ñu mën a wutal xëy ñi nga xam ne ni ñoom ñuy migrants yi. daf ñuy permettre ñu continuer gën a mën a jàppale ndaw ñi ñi nga xam ne ñii dañu bëgg tukki tukki bu normal ak euh, régulière je veux ci voie normal bi ak ñi nga xam ne dañu tukki woon bëgg a si ci jox leen ay projet joxleen leen ay kit d'insertion yoo xam ne da leen di permettre ñoo xam ne ñu am activité toog ci réew mi. gannaaw bu ñu nemmeekoo jafe-jafe yu mbëkk yi ñaari kuréel yooyu fas yéene liggéey ngir yombalal xëy mi ñu bëgg a dem mbëkk ji ak ña nga xam ne ni dañoo dem ba dellu siwaat sensibilisation formation accompagnement financement def nañ ko lu bare bare ay jeunes yu bare ci ci ci Sénégal yëpp. donc loolu mu nekk expérience boo xam ne dañ ko am. donc euh, tey euh, ak convention bi ñu signé. ci la rek ci ñuy def. ñoom ñi le bëgg rek it ba tukki doon li nga xam ne ni dañ koy seetaat waaye bañ cee sóobu ngir bëgg a dem rek. pour faire la la migration. dañoo bëgg a fexe ba tukki bi su ko ndaw bi di def mu nekk loo xam ne da koy xalaat ba noppi ut ci ay xibaar waaye bëgguñu mu def ko ndax dafa amul pexe ni ñu ko gisee ci jamono ji ak ndaw yi nga xam ne dañuy jël gaal gi. bi le xaatim déggoo di firndeel lëkkaloo bu ñaari kuréel yi lëkkaloo ci atum 2015 ba tey jile te ñu bëgg rek faj jafe-jafe mbëkk mi ci ba muy teel